أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi jël tey ñu ngi toll ci suratul baqara di jël aaye 148 49 150 151 ak 152 mu nekk juróomi aaya yu ñu borom bi subhaanahu wa taala di jàngal juróom ñaari mbir bi ci njëkk mooy al iraadu an il jadali al muaanijin wal iqbaali ala taaat tanaafusan fiha wa tasaabuqan ilayha is huwa anfacu wa ajda min al jadali wal xusumaat maa man laa yurja rujuuhu ila al xaq bokk na ci li ñuy jàng ci juróomi aaye yi mooy borom baa ngi jàngal ñuy dummóoyu bañ a déglu bañ a werante ak di waxtaan waa ji nga xam ne dafa weddi yàlla tabaraka wa taala dafa fetteerlu dëgër bopp ku fetteerlu dëgër bopp ci mbiru yàlla tabaraka wa taala borom bi day wax ne kenn warul wax ak moom wal iqbaalu ala taat borom baa ngi sàkku ci ñun ñu jublu topp yàlla tabaraka wa taala pour lan mu ne tanaafusan fiiha ñu jéem a njëkkante topp yàlla jéem a rawante ci topp yàlla jéem a góor góorlu ci topp yàlla tabaraka wa taala jéem cee njëkkante lu tax is huwa al anfa wa ajda min al jadali wal xusumaat nit ki jéem a góorgóorlu ci topp yàlla jéem a sonn ci topp yàlla tabaraka wa taala moo gën téeméeri yoon toog di werante ak di xuloo ak di dàggasant ci loo xam ne amul benn njëriñ amul fulla amul fayda rawatina nag su fekkee doomu aadama boobu wala jullit boobu kamuy waxal kamuy dàggasanteel kamuy weranteel dafa bokk ci ñi nga xam ne maa aman laa yurja rujuuhu ila al haq dañoo yaakaar ne waa ji ngay waxal waa ji ngay weranteel waa ji ngay dàggasanteel du musa dëpp du musa bàyyi caaxaan dellu ci yàlla du musa dëpp du musa wëlbateeku kon jarul ngay dàggasanteek moom ndeke dàggasante dina am njëriñ coow dina am njëriñ wax dina am njëriñ werante dina am njëriñ bu ñu yaakaaree ci kii nga koy defal dana gis bis bu dëgg leeree mu dellu si ci dëgg bi waaye bu fekkente ne moom lépp la yemale su dëgg leeree du dellu si amalu ko am njëriñ kon su boobaa dinañ sàkku ci jullit bi mu bañ a dàggasanteeg waa jooju ndax du am benn njëriñ day yàq waxam rek day yàq énergie day jeexal waxam ndax ki muy waxal du musa dellu siwaat kooku mooy benn ñaareel mooy wujubu istiqbaalul qibla fi salaati wa sawaun kaana fi safari aw fi lxadari illa an almusaafir yajuuzu an yusalli naafila xaysu tawajjahat daabatuhu aw tayaaratuhu aw sayaaratuhu ila alqibla wa ila gayriha bokk na ci li ñuy jàng ci aaya yi di ñëw mooy jublu penku ci wàllu jaamu yàlla ci julli jublu penku lu ñu sàkku la maanaam jublu xibla lu ñu sàkku la jublu xibla lu ñu sàkku ci kii julli la kii jaamu yàlla moo xam moom waa jooju dafa tukki moo xam moom waa jooju dafa teew tukkiwul lu tax kenn dong lañu may muy julli te jubluwul xibla mooy ki nga xam ne dafa tukki ba pare nekk ci dinaafi la moo xam dafa yéeg ci oto moo xam dafa yéeg ci fas moo xam dafa yéeg ci gëléem wala mu nekk ci avion wala mu nekk ci otoom kooku moom dana kàbbar rek fu mu jublu baax na parce que dafay naafila amma bu fekkee farata la laa budda mu jublu xibla moom waa jooju bu fekkee nag du julli farata julli naafila la waa ji mën naa jublu fu ko neex loolu sharia may nañ ko maye na ko ñeenta ñetteel mooy xurmatu xasiyatu nnaas wa wujubu xasiyatullahi taala araamal gi nga xam ne sharia araamal na ko nit mu ragal nit moroomam kenn dong lañ war a ragal mooy allah subhanahu wa taala kenn rek kenn rek lañu war a ragal ci kaw suuf kenn kenn mooy kan allah subhanahu wa taala amma keneen amuñu droit ragal keneen ku dul yàlla yàlla rek lañu war a ragal ragal keneen ku dul yàlla dafa xaraam ñeenteel mbokk yi wujubu shukrullahi taala ala niamihi zahir wal batin dinañ jàng ci ay yi nekk sunu kanam ne sant kenn moo ko moom mooy yàlla te sant yàlla dafa war rawatina nga sant ko ci xéewal yi mu la defal yi feeñ ak yi nëbb sant yàlla ci xéewal yi feeñ ak xéewal yi nëbb léeg-léeg doomu aadama dana réere mbir yu bare bare bari ba defa ne mbir yi feeñ ndong la ko yàlla may fekk ci mbiri baatin yi nëbbu yi ko ci yàlla may kenn xamul nu mu toll waaye doomu aadama bi ci ñàkk gu mu ñàkk a teewlu wala ñàkk gu mu ñàkk a seetlu ci lay lànke bañ a sant yàlla subhanahu wa taala dafa ne yàlla defalu ko dara léeg-léeg sax nga ni ko ab sawa mu ne la sénégalaisement parce que jàpp ne temps yi mbir yi baaxul sant yàlla tabaraka wa taala ci xéewal yi feeñ ak yu nëbb lu jaadu la ci ab jullit juróomeel mooy wujubu taallum al ilma ad daruri li yatamakkana al abd min ibadati llahi ibadatan tuzakki nafsahu sàkku xam-xam xam-xam boo xam ne fardul ayni la bi ngay xam yàlla xam yonent xam sa diine ñetti xam-xam yii sàkku ko lu war ci ab jullit la boo déggee ñu naan jullit dafa war a am xam-xam rawatina mu xam yàlla mu xam yonentam mu xam diineem ñett yi jullit waru ko réere xam-xam boo xam ne moom jullit bi moom jaamu yàlla bi dina ci mën a jaamu yàlla ngeen jàngee usulu salaas di ngeen dégg cheikh bi li mu njëkk a wax mooy jullit bi xam boroom maarifatul abd rabbahu gis ngeen boobu la njëkk cité su ngeen jàngee laxdari di ngeen dégg mu lu mu njëkk a wax ci ab jullit awwalu maa yajibu ala al mukallafi tasihu imaanihi njëkk war ci ab jullit mooy mu wéral ngëmam ngëm gi mënul wéral du nga am xam-xam moo tax jullit war a sàkku xam-xam boo xam ne ci lay xamee boroomam subhaanahu wa taala ngir mu mën ko jaamu ibaada jaamu goo xam ne tuzakki nafsahu daf ci laabal boppam daf ci setal boppam ci sirk ci bidaa ci ay aada ci tey li tax nit ñi di bokkaale mooy ñàkk xam-xam li tax nit ñi jël ay bidaa ak ay aada jaxase ko ci sunna mooy ñàkk xam-xam su xam-xam bi leeree rek da ngay xam fi nga teg sa tànk mais bu fekkee xamoo dara da ngay jaxase ndeke kon war nañu bàyyi xel ne sàkku xam-xam pour jaamu yàlla pour setal sa bopp lu jaadu ci ab jullit la moo doon juróomeel juróom-benneel wujubu zikrillahi bi tahlili wa takbiri wa tasbihi wa wujubi shukruhu bi taatihi ixwat al iman tudd yàlla tabaraka wa taala ci ay turam di wax laa ilaha illa allah wa takbir wala di wax allahu akbar wa tasbih wala di wax subhanallah loolu jaadu ci ab jullit la dafa war waaye lu war la sant yàlla ci topp gi nga koy topp ñaata yoon la ñuy jàng ci alquran baatu zikr fazkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun ñaata yoon la ñuy la ñuy jàng ci alquran wadkuru llaha dikran kathira ñaata yoon la ñuy jàng wa sabbihuhu bukratan wa asila tudd yàlla tabaraka wa taala dafa jaadu ci ab jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dundam yépp ku ko jàng da nga gis ku doon tudd yàlla la suba ak ngoon ku delluwaat ci téere hadis yi di nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam azkar yi mu daan def suba ak ngoon juróom-ñaareel mooy xurmatu nisyaani zikrillahi wa kufraani niamihi bi tarki shukriha mbokk yi nekk ñàkk bañ a tudd yàlla dafa xaraam ab jullit xëy suba ba ngoon tuddoo yàlla jaaduwul xurmatu araam na nisyaani zikrillah fàtte tudd yàlla ab jullit benn borom waxoon dañ ko laaj ci aaya bi naan aaya aaya bi yàlla doon wax léegi fazkuruni azkurukum fàttaliku leen ma maanaam tudd leen ma ma tudd leen fazkuruni adkurukum fàttaliku leen di tudd yàlla yàlla tudd leen ñu ne ko aaya bi noo ko déggee mu ne fàttaliku yàlla day yokk bàkkaar ñu ne ko ah li nga wax garaaw na de lu sax yàlla ne fazkuruni azkurukum yow nga ne fàttaliku yàlla day yokk bàkkaar mu ne da nga koo warul fàtte waroo koo fàtte koo warul fàtte boo ko fàttee rek am bàkkaar yàlla jullit da ko warul fàtte kenn warul fàtte yàlla zikrullah mubaax li kulli zaman wa fi kulli makaan tudd yàlla lu bagan la lu dagan la laajul njàpp laajul jublu penk gis nga ba ngay tëddee ci sala sala sax allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ñuy tudd yàlla bu ñu taxawee bu ñu toogee bu ñu tëddee ndeke mën ngaa tëdd sa kaw lal sax jaaxaan ndeke yaa ngi tudd yàlla ndeke mën ngaa toog tàllal say tànk yaa ngi tudd yàlla ndeke mën ngaa taxaw sax di dox yaa ngi tudd yàlla di tudd yàlla tabaraka wa taala aajiwul njàpp laajul dem sanguwuma déedéet mbokk yi ñaareel juróom-ñaareel mooy wa kufraanu niamihi weddi xéewal yi yàlla defal ab jullit naka lay nekkee mu ne bi tarki shukriha nekke yàlla bu la mayee xéewal santoo yàlla yow weddi nga yàlla ci xéewal bi mu la defal jàng ngeen ci alxuraan yàlla mu ne wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis xéewal yi ma leen defal wax leen ko sant leen ko wax leen ko ci kaw na ko nit ñi dégg waxtaane leen ko sant leen ma man yàlla ci xéewal yi ma leen defal ñàkka sant yàlla ci xéewal yim la defal loolu weddi yàlla tabaraka wa taala suñu tënkee juróomi aaya yi ñu war a jël darsu tey juróomi aaya yi lii lañ ciy jël ci njàng muy juróom juróom-ñaari mbir yooyu ay yaay di ñëw sunu kanam mooy juróomi aaya yi yàlla wax subhanahu wa taala juróomi njàngin yooyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك سطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك سطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم سطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يقول جل وعلا ولكل ñeel na kenn ku nekk ci njaboot gi fi jiitu woon dem yonent yi diine yi nga xam ne sharia yi nga xam ne yàlla wàcce woon na ko démb ci ay yonent kenn ku nekk ci ñoom wali kullin ñeel na kenn ku nekk wijhatun jublukaay kenn ku ci nekk ci ñoom am nga jublukaay booy jublu huwa moom mu walliha boo xam ne moom foofu la war a jublu nasaraan yi am na fu ñu war a jublu yahuud yi am nañ jublukaay jullit yi am nañ jublukaay kon bu ñu la forcé yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la jéem a imposer seen xibla déedéet kenn ku nekk ci ñoom am na jublukaay noppalal sa bopp li kulli ahli milla kal islam wal yahud wa nasraniya qibla yuwalluna wujuhahum laha fi solatihim kenn ku nekk ci ñoom ci yoon yi muy islaam muy yahud muy nasaraan kenn ku nekk ci ñoom am na jublukaay bu muy jublu su jaamu yàllaam jotee su julleem jotee na fa jublu buñ la topp bu leen topp mukk yow muhammad alayhi salaatu wasalaam ci seeni caaxaan niñ lay wax yow jublul sa xibla yàlla mu ne fastabiqul xayraat njëkkante leen yiw yi yu baax yi na ngeen ko njëkkante al xayraat al birr wa taa lillahi wa li rasulihi lépp lu baax lépp luy topp yàlla akub yonent su jotee yow jullit bi njëkkante ko bul ko bàyyee kenn fastabiqu alxayrat njëkkante leen lu baax li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na alxayru kasir waaye wa qalilun failuhu lu baax dafa bëri torop waaye dafa néew ci nit ñi ñu koy def alxayru kasir waaye wa qalilun failuhu ñi koy def ñoo tuuti tey buñ doon seet di wax di laaj ay mbir yu baax waxuma sax lu lay may tiyaaba waaye ci wàllu àdduna rek lu baax ak néew ñi koy def diina ji lépp dafa baax diina ji amul lu ñuy wax cam waaye gis nga nit ñi duñ ci sonn xoolal tey nit ñi duñuy sonnee ci xoolal tey lii lii wala nit ñi niñ ciy sonnee stade bi ci timis bi ñu nekk stade bi ak jàkka ji lu gën a xees ah lan la yàlla wax nañ njëkkante du lu baax li wala lu baax li kenn du ci ñëw te lii yenn saa wax xeex gi fi ab démb rek démb xeex bi fa am kenn xamul nu mu doon ba ñun sax démb mos nañ ci xeex bi te demuñu dikkunu suñu biir néeg suñuy biir saal la ñu xeex bi fekk billaahi wallaahi taalaay démb ci waxtu yi kon ngeen xam ne mbokk yi lu baax li yàlla wax fastabiqul xayraat na ngeen njëkkante lu baax lu baax bëri na trop mais doomu aadama tey pour mu def lu baax mooy problème am alxayru kasir waaye wa qalilun failuhu xoola man dalla ala alxayri ka failihi man dalla ala alxayr ku wane lu baax ne lu baax a ngi nii def leen ko yow da ngay am tiyaaba ak ñi ko def mais nit ñi lu baax moo leen yitteelul tey mbaax moo yitteelul nit sol lu baax wax lu baax dem fu baax jëf lu baax yitteelatul doomu aadama yi ci kaw suuf dafa mel ne nit ñi dañuy concours ak mbon suñ ne lii dafa bon dafa mel ne nit ñi dañ koy concours waaw kan moo gën a bon kan moo gën a mën a def lu bon te borom bi li mu wax ci aaya bi mooy fastabiqu na ngeen njëkkante alxayraat lu baax li na ngeen ko njëkkante na ngeen njëkkante lu baax ñun tey ñuy njëkkante lu bon borom bi mu ne lan moo tax ngeen war a njëkkante lu baax mu ne na ngeen yëg ne aynama takunu fu ngeen mën a nekk yaati bikumullahu jamian yéen ñëpp yàlla dina leen indi kenn du ta kenn du manqué fu ngeen mën a ne aynama takunu yaati bikum allahu jamian yéen ñëpp yàlla dina leen indi allahu akbar wa ma antum bi mujizina fi l ardi wala fi sama kenn du rëcc kaw asamaan kenn du fa rëcc suuf kenn du fi rëcc fu ngeen mën a nekk rek yàlla nee na dinaa leen teewal ci sama kanam kon nag def leen lu baax ah man kaana yarju liqaa rabbihi falyafal maza falyamal amala salih ku mu leer ne ay bëccëg ngi ñëw wala ay guddi di nga dajeek borom bi tabaraka wa taala mu ne jëfal jëf ju baax na nga jëf jëf ju baax jëf ju baax nag li ko nit di doyee mooy di nga dajeek yàlla moo tax te yàlla lu baax la la sant kon nga góorgóorlu ci lu baax li mu ne inna allaha naka yàlla ala kulli shay'in ci lépp lu mu mun a doon qadir moom yàlla mën na ko dogal moom yàlla ku ko mën a def la inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën bokkul ci pas-pas nga yaakaar ne am na yàlla lu mu mën yàlla lépp la mën inna allah ala kulli shay'in qadir yow yaa am jafe-jafe yaa mënul mais yàlla moom qadirun ala kulli shay lépp mën na ko def misaal tey bu ñu ne woon Barack Obama mën na tuub nga nekk ne héhé loolu kay mënul nekk ah kay yàlla mën na ko def waxuma sax ñooñu mais fii rek am na nit ñoo xam ne tey bu ñu la ne woon mën nañoo tuub nga ne ah déedéet inna allah ala kulli shayin qadir yàlla mën na ko yàlla mën na ko borom bi subhanahu wa taala mu ne wa min xaytu xarajta foofi mën a génnati foofi mën a nekkati yow jullit fa walli jubalal wajhaka sa xar kanam satara pegg almasjidil haram jàkka ji ñu ormal ji jàkka ji ñu tuur ku fa di ñuy tere ku fa tuur deret mooy makkatal mukaram foo mën a nekk ci kaw suuf foo mën a nekk su waxtu julli jotee fa walli jubalal wajhaka sa xar kanam satara pegg almasjidil haram makkatal mukaram kon ñun yàlla moo ñu orienté wax ñu won ñu suñuy julli fan la ñuy jublu kon loolu amatul question jàpp naa ne nag fi ngay jublu fi nga xam ne foofu nga war a jul jublu sooy julli foofu war na laa doy wala waru laa doy su ma la doon joxe misaal di laaj murid yi fan moo leen doy ku may tontu tijaan yi fu leen doy laayeen yi fu leen doy waa cana ba fu leen doy cana ba Madina Gunaas fu leen doy daaka jullit fu ko war a doy waaw yooyu nu waa màkk ñii waa màkk la ñun bokkuñ ci kon de war ngeen seetaat seen bopp ku màkk doyul de xaw ma fu lay doy fekke ñun ñu nekk ci réew mi ñu am fulla ba fii ñu nekk doy nu ñu ne jullit bu gëm yàlla Madina du la doy màkk du la doy fa yonent bi tëdd gaa yi seetaat leen mbir mi waay ku Madina doyul fu lay doy ku màkk doyul fu lay doy ma ni rawatina nag fu yàlla ne na ngeen fa jublu lii yàlla moo ko wax de fa walli wajahaka maasa ila Sénégal loolu la yàlla wax loolu mooy ci aaya bi fa walli wajahaka satral masjidil haram jullit màkk daf ko war a doy ndax yàlla moo ne na leen doy na ngeen fa jublu fu la yàlla ne jublul kay jeex na waaw kon ñooñu war nañoo tabaski yow nga nekk fi naan damay xaar ba suba wala ñooñu war nañoo woor nga naan man ba suba wala waaw bu ngeen doon wër ñi ma tudd sànq fii yëpp ku doon wër seen doom yi fan ngay dem du fa ñu nekk waaw léegi nag Sénégal moom ngay wër doomu yonent bi ñëw Sénégal ah ah léegi ñu naan kii surtout yonent bi ñu seetaat suñu bopp borom bi subhanahu wa taala nee na jublu makkatal mukarram wa innahu loolu ma la wax yow muhammad di jublu makka lal xaqu mooy dëgg min rabbika bu bàyyi ko ci sa borom koo jublu feneen da ngay perte fi ma la jubloolu daal loolooy dëgg waaw lii doyul way nahu loolu jublu foofu bàyyi jublu fenn fu dul foofu alxaq lal xaq mooy dëgg min rabbika mu bàyyi ko ci sa borom lii leer na de lii mooy texte sans commentaire wala war na lii yam na commentaire lii amul amul ke waxu kenn nekk fi lii dafa leer nañ kon nag lii rek war naa doy ab julit ne màkka war na koo doy waaw waa màkka waru ñuy jaamu yàlla ñun ñu tëdd fii di nelaw waa màkka bu ñu jullee vendredi ñun ban bis la ñuy julli lu tax duñ toog ba suba si wala ah mu ngoog wa innahu loolu te jublu ci kaaba gi alxaq mooy dëgg lalxaq mooy dëgg min rabbika mu bàyyi ko ci sa boroom wa ma allahu déet yàlla bi gaafilin di sàggane amma taamaluuna li ngeen di def yàlla sàgganewul li ngeen di def de da ngeen li ma leen wax yàlla nee na li ngeen def yëpp dama ko enregistré ahsaahu llahu wa nasuuhu yàlla enregistré na ko yéen fàtte ngeen ko jàng ngeen ci suratu yaasin yàlla mu ne man maay bind sax seeni trace lépp lu ngeen def man yàlla maa koy bind maay bind lépp lu ngeen def yenn saa yi nga def dara sax fàtte fekk yàlla enregistré na ko waaw ahsaahu llahu yàlla bind na ko yéen war na suufu fàtte ngeen ko waaw fàtte ngeen ne def ngeen ay bàkkaar yu bëri waaw julli ñetti fan rek fàtte bàkkaar yële daal ñëw nag dafa ne jeex na te yàlla bind na ko ba ëllëg yowmal qiyaam mu daal di koy jóor ci sa kanam nag mu nekk jàll nga naan waa yàlla yi nag mu ne ah yaa ko defoon de da nga koo fàtte wama allahu bi gaafilin amma taamaluun yàlla nee na li ngeen di def sàgganewu ma ko lépp maa ngi leen booleeg ay malaaka ñu ngi koy enregistré te bàyyiwuñ dara maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nee na wax ju ngeen wax dara baat lafz baat du génn lu dul ñoom enregistré nañ ko ñoom ñaar ñooñu mooy raqib ak atid waxuma laat jëf fi nag kiraaman katibin yaalamuna ma tafaluun moo tax ngeen jàng ci alquran yàlla mu ne yaa ayyuha alladi yaa ayu yaa ayyuha allazina amanu wala yaa ayyuha nnaas ittaqu rabbakum wal tanzur nafsun yaa ayyuha allazina amanu la yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun maa qaddamat li gadin gis nga maa qaddamat li gad ragal leen yàlla ngeen xool li ngeen di def ndax ëllëg ëllëg dafa jar olof yi dañ naan ëllëg du añ du reer waaye dafa jar a sédd ñu ne ëllëg du añ du reer waaye jar naa sidd jar na nga dank denc dara pour suba denc say jëf yu baax ngir ëllëg yowmal qiyaamati ngir bàmmeel waaw koo gis muy tukki rek am na lu mu denc soo ko ne lii mu ne non non non lii sama passé ngi ni lii nag la koy mu ne ah non lii nu laay préparé yoon bi dama nga gis ni léegi nag yow nga nar a jóge àdduna dem àllaaxira dencoo dara wóorul de wala wóor na voyage sans retour voyage àdduna moom da ngay dem ñu del siwaat bu naqaree nga del siwaat nekk sa kër toog jàpp sa njàmbur àllaaxira nag da ngay dem su neexee fa ngay des bu naqaree fa ngay des dootoo del si ndeysaan li dof bi defoon ñëw ba tiim armeel yi mu daal di laaj laajam bu rëy maa li ara nnaas yazhabuna summa la yahudun ahum taraku fanaamu an am tafaddalul baqaa fa baqaw lu tax ma gis ne ñi di dem te duñ del siwaat wala gaa yaa ngi del siwaat armée yi ndax ku fa dugg di nga génnaat kuñ fa duggal rek doo génn mu ne ndax dañoo dem foofu neex ñu toog wala dañoo dem bëgg a ñëw ñu téye leen ñaar rek a fa nekk ki fa dem mu neex mu toog ki bëgg a ñëwaat ñu ne ko mu say wa annakum ilayha la taudun foofu waxoon nañ ko ba pare du ngeen fa del siwaat saxaaba bi dañ ko rey ndeysaan biñ ko reyee yàlla daal di jàkkaarloog moom feeñu ko ne ko waxal loo bëgg ma defal la mu ne nga delloowaat ma àdduna ma xeexaat ñu rey ma ma delluwaat yàlla mu ne ko déedéet loolu mënatul nekk waxoon naa ne àdduna ku fa génn du fa delluwaat ñun kenn ci ñun tey bu jàkkaarloo woon ak borom bi subhanahu wa taala yàlla mu ne ko waxal loo bëgg ma defal la lu muy wax dañ leen wax dëgg rek tey kenn bu yaakaaroon ak borom bi subhanahu wa taala yàlla mu ne ko waxal loo bëgg ma defal lu muy wax mbokk yi wal ma benn R plus 4 karomar bi ci kaw ba suuf benn limousine ah yooyu affaire àdduna rek la ñuy wax xoola saxaaba de waxal loo bëgg ma defal la mu ne nga delloo ma àdduna ma xeexaat ku xeex ñu rey ko mu ne nga delloo ma àdduna ma xeexaat pour ñu reyaat ma ci liñ ma rey allahu akbar yàlla mu ne loolu waxoon naa ko ku fa génn doo delluwaat ku fa jóge doo fa delluwaat kon nañu jëf ay jëf yoo xam ne daf ñuy préparer suba bu ñu génnee àdduna ñu nekk ci lu baax ndax yàlla kat lépp lu ñuy def yàlla nee na sàgganewu ko borom bi delloowaat aaya bi rek mu ne wa min haysu xarajta foo fi génnati fa walli na nga jubal wajhaka sa xar kanam satara pegg al masjidil haram jàkka ju tedd ju màgg jooju jàkka jooju ñu ormal muy makka waxay suma yow mu yow yonent bi la ñuy waxal ñun suñu wàll ngi nii mu ne waxay suma kuntum fu ngeen fi mën a nekk yéen jullit yi fa wallu jubal leen wujuhakum seeni kanam satarahu ci peggu jàkka jooju ñun suñu wasa ngi nii daa léegi nag yonent bi la yàlla wax lii ñun yàlla ñëwaat wax ñu lii ñaata aaya la yàlla wax lii ñaata aaya bi mooy troisième bi kon lii waruñu doy ah bu ab jullit ñëwee taxaw fii naan màkk dara nekku lenn saa yi sax nit di aji màkk ñu ne la yaa ngi nit dem nag boo fa jëlee dara boo fa xool dara dama rek ñëwaat ñooñu bàyyi leen nag la ñu yor ndax ñoom ñun li ñu yor fii ak ñoom la ñu yor du benn waaw bu fa xool dara bu fi indi dara soo fa xoolul dara indi woo fi dara ah doo am dara boo fa xool dara jéemoo fee indi dara doo am dara moo tax aji màkk ak dem màkk du fa dégg ngeen fan yi li xew ci màkk bi tey lan ngeen dégg information ñaata la femme bi sàcc voleur ñaata million 30 millions ay ooru jàmbur ba ñu jàpp ki mu àndala moom mu réer léegi gisuñu ko gis ngeen lii nag day doog a feeñ rek Sénégal yàgg nañoo dem di sàcc màkk ñu ëpp fi ñuy aji ay sàcc lañ ak defkat lu bon bis bu leen yàlla mayee ngeen dem di ngeen ci teg seen bët ñu ëpp jaamu yàlla yóbbuwu leen faw yi kese ak sàcc ak jaay seen bopp moo tax war nañ xoolaat suñu bopp semaine ba la ngeen dégg ñaari jigéen di werante ci Dubaay ah lu ñu sàcc indi ko fi di ko séddoo ñuy werante ba weer seen bopp kii ne maa doon génne sama awra kii ne maa ko sàcc xanaa dem di jëndi or sans jigéen sans jiital sans sol slip ñëw ubbi sa sër ne nii taxaw ci kanamu waa ji jaay mu taxaw di xool keneen nekk fee di sàcc ñoom noonu la ñuy def ñu ñëw fii weer seen bopp. moo tax am na ñuy yëkkati fi ay kër am na ñu lay romb ak ay oto bu leen ñee ndax seen alal bi xam nga fu ñu ko jëlee santal yàlla rawatina nag jigéen ñi ngeen di gis tey ci Sénégal ñuy dawal oto yoo xam ne góor ñi mënuñu ko am nga gis leen di leen ñee fekk xamoo seen alal ji fuñ ko jëlee ci njaaloog du kenn xamul am nañ yàlla jubal en tout cas réew mi war nañ xoolaat seen bopp aj bi yëpp Sénégal bi yëpp alamul islaam yi yëpp Sénégal yi ngeen dégg ñu fay def lu bon sàcc jëf yu kenn xamul même sax ci avion yuy tardé Sénégal ngeen di dégg ujaa ji neen dañuy mars suba parce que amuñu avion yu leen dellu si Sénégal yi ngeen di dégg yu bon yi doo dégg mukk chrétiens yi dem nañu Rome seen avion tardé jamais wala mos ngeen ko dégg julli ji rek la ñuy fawee parce que xam nañ ne gëmuñu tus dara lañ gëmu bu ñu meloon nu ñu war a mel yàlla dinañu ñu baax ñu ñu toppatool suñu jaamu yàlla natt yu ngeen di gis fii yépp réew mi moo baaxul réew mi fi mu jëm baaxul de xaw ma nag ñan la fi fekk waaye fi mu jëm baaxul ndax loolu ñuy wax jaamu yàlla moo fi amul ay fo rek moo fi nekk foo caaxaan kese kese te nit ñi bañ ko wax nag dafa ne ñu ngi ci lu baax fekk nekkuñ ci tus nit ñi dinañ baaxoon dinañ dem ba màkk di fa sàcc suñuy jigéen rek la ñuy dégg ñuy wax loolu àdduna bi yëpp suñuy jigéen kese ren ji ñaata sàcc lañ fa jàpp ay sénégalais ñaata ah ki mooy deuxième te ñi ñoo feeñal rek ñi la caméra yi génn ñiy dem ci place yi nga xam ne amul ay caméra nag ak ñi fay dem ñi dem jidde di jaay seen bopp nag ñi leen defal ay conteneur ñu indi kenn daa xam nañu toll alan yàlla jubal kon sunu borom subhanahu wa taala nee nañu wa haysuma kuntum fu ngeen mën a ne fu ngeen mën a ne yéen fu ngeen nekk waaw wa haysuma kuntum la yàlla fu ngeen mën a nekk fa wallu jubal leen wujuhakum seeni xar kanam satrahu ci pegg jàkk jooju lu tax mu ne li allah yakuna linnaasi aleykum hujja su ngeen ko deful nit ñi am ci yéen lay mais waa màkk bu ñu jullee tey ñun ñu julli suba mais loolu lay la chrétien dañ naan ndeysaan xoola julli di chaque jour dañuy divisé wu chaque jour ñu divisé wu ndeysaan mais lay la chaque jour julli yi ay ñett ay ñeent li allah yakuna linnaasi aleykum hujja kon tey dëkk bi yàlla wax ne su ngeen di julli jublu leen fa dëkk bi ñoo war a jiite nit ñi ñoo war a jiite jullit yi l'islam bi ñoo ko war a jiite ndax mbir yi fa la nekk tarixa yi ñoo ko jiite fu ñu nekk du fañ dëkk du fa tarixa ba juddoo wala wala ma ma ma tudd tur yi bokk comme da ngeen ragal ñooñu du foofu lañ nekk waaw kon kay diine bi ñu ko war a jiite fii lan war a nekk ñooñu lu ñu def war nañu doy ay déedéet comme ñun danoo nar a alko danoo nar a dem safara loolu moo tax sunu mbir doy waar borom bi subhanahu wa taala mu ne illa alladina zalamu minhum gis ngeen illa alladina mu ne ba mu des ñi nga xam ne zalamu ay tooñkat lañ minhum ci ñoom waaye fala taxshawhum bu leen leen ragal liñ leen di tooñ yépp liñ leen di jam yépp liñ leen di wax yépp ak liñ leen di def yépp fala taxshawhum bu leen leen ragal ba leen di topp bañ a bàyyi sama xibla bi bañ faa jublu bu leen leen ragal wax saw nii na ngeen ma ragal man yàlla man kese leen ragal kenn moo tax jullit yi bi ñu commencé ragal ku dul yàlla lañu am problème ba ñu ragalee ku dul yàlla ragal ay intérêt ragal ku leen dàq fa ñuy liggéeyee ah ragal seen sëy yu tas ragal ñu leen mere a tax musibaam waaw loolu rek moo ñu dal de ragal te yàlla woon la falaa taxshawhum bu leen leen ragal wax saw nii na ngeen ma ragal man kese mu ne wali utimma ndax ma mottali ma matal niamati sama xéewal aleykum ci yéen wala allakum ndax yéen taxtaduna ngeen jub ndeysaan xéewalu yàlla niamati niamullahi kathir xéewal yàlla dafa bari wa azamuha niamatul islam bi ci gën a rëy mooy xéewal yu ñu yàlla xéewalal ñu nekk ci lislaam nekk ay jullit mbokk yi ana kan ci ñun bi la yàlla di bind da ngaa def demande ne ko def ma jullit boole ma ci ummatu muhammad kan kan ci ñun fii bi muy judd mu def demande lettre am ne yàlla def ma jullit boole ma ci ummatu muhammad xayru umma kan xéewal la yàlla baaxe ñu def ñu ay jullit boole ñu ci xeetu yonent yàlla muhammad waaye xéewal la yàlla baaxe ñu génn ñu ci lëndëm bu bon bi dugal ñu ñuy dund alquran ak sunna ñuy daw bokkaale di daw sirk di daw bidaa kan ci ñun fi moo def demande ñi nekk instant bi nga defee ne yéen a leen gën ah waaye wa kazalika kuntum min qabl fa manna allahu aleykum gis nga am na ñun ñoo xam ne fii daaw wala daawaati jéeg ñoom ñoo yoroon drapeau ASC yi tey ba dëgg bi leeree bàyyi nañ ko ñu ngi ñëw ci xéewal allah subhanahu wa taala bu ñu rombee lii dañuy mel ne ko ay dem àll ba di xeeñ yàlla moo la ci génne yàlla moo ñu ci génne defuñu benn effort wala da ngeen joxe xaalis pour ngeen dund sunna da ngeen a fay ah da ngeen a xeex yàlla moo leen da ngeen a dégg dëggu yàlla ngeen xam lii mooy dëgg ngeen bàyyi ko bàyyi caaxaan yi ñëw ci yàlla subhanahu wa taala moo tax mu ne wali utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun ngir ma mottali sama xéewal bu ma leen defal xéewal yooyu bi ci gën a rëy mooy xéewalul islaam wa itmaamuha bi muwaasalati tashri yàlla matal na ko ba mu ko mottalee ak sharia lépp mat sëkk looloo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xajatul wida xajatul wada ca Arafat yonent bi taxaw ca naaj bu tàng ba aaya bi wàcc al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islaama diina tey man yàlla subhanahu wa taala fii laa leen mottalee sama diine ma mottali sama xéewal gi ma leen defal ma gërëmal leen lislaam muy seen diine yàlla bu ne maa leen gërëmal lislaam muy seen diine ñun lan moo nu war a doyati lu yàlla gërëm ne nanga ci jàpp nga dund ko nga dee ci lan nga lan moo lan moo la dese loolu nga ñëw nga taxaw rek nga góorgóorlu nga dem aljanna loolu rek moo ci des borom bi subhanahu wa taala mu ne wa laallakum tahtaduun ngir ngeen jub man yàlla maa leen mottalil sama xéewal ngir ngeen jub wa laallakum tahtaduun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba walhikma wa yuallimukum ma lam takunu taalamun kama arsalna ni ki ma yónnee woon fiikum ci yéen rasulan ndaw muy yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam minkum ci yéen man yàlla maa tànn sama yonent yónni ko ci yéen muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu ba ba mu ñëwee yattulu alaykum mu ngi leen di jàngal ayatina samay aaya li ma ko jox man yàlla wa yuzakkikum mu ngi leen di satal yutahirukum min az-zunub wal axlaaq as-sayyi'a yonentu boobu ñëw na di leen laabal ci ay bakkaar ak jikko yu ñaaw ak melokaan bu suufe boo xam ne doomu aadama war na ko jomb wa yuzakkikum mu leen di laabal huwa allazi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkikum gis nga at tazkiya mooy set setal sa bopp qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha ku setal sa bakkan laabal sa jikko yow texe nga waaye cëy ku taqal sa bopp ku laab ku tilimal sa jikko yow alku nga texee di nga sunu borom subhanahu wa taala mu ne maa yónni yonent pour mu laabal leen setal leen wa yuallimukum mu jàngal leen alkitaaba téere ba te mooy alquranul hakim wal xikma ak sunna jàngal leen alquran ak sunna maa yónni yonent bu tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk mbindeef comme yéen basharun wulida kama wulida al bashar mu judd ni nit ñi di juddoo waaw yéen ñaar du ngeen ragal yàlla du ngeen ragal yàlla yéen ñaar léeg-léeg nga dégg ci Sénégal ñuy tagg benn kilifa naan moom juddoowul nit ñi ñuy juddoo léeg-léeg nga dégg ñu tagg benn kilifa ne moom am nay jabar mais jabar yi soxlawu leen daanaka sax du fanaan ak ñoom ñu ne waaw doom yi nag ñu ne non ay aaya la bind rek jox jabar yi jabar yi naan rek ëmb léeg-léeg nga dégg ñu ne maanaam ay mbir yoo xam ne dafa mel ni kon ki ni ñuy juddu nit ñi ni ñuy juddoo moom loolu baaxul dafa xaraam dafa salte ñun nit ñi juddoo noonu la yonent Yàlla Muhammad juddoo am papa am yaay ñu ëmb ko comme fi ñuy ëmb nit ñi ci biir mu juddu nit ñi juddoo wulida kama wulidal bashar fii nag dañuy tagg ay nit naan asamaan lañ jóge am na ci koo xam ne sax biñ naan bu muy judd ñu ne dafa sol yére noonu dafa judd sol yére allahu akbar xam nga am na yoo xam ne aleen yàlla jërëm am na ci ñoo xam ne ñu ne bu ñuy judd deret jooju doomu aadama di àndal ñu ne non deret bi ñëwul moom rek moo ñëw yaay bi dafa julli ñaari raak fajar daal di am doom julli fajar bi ndeysaan bu ngeen ne loolu xel nangu ko sax jigéen bu jut bu amee doom dañ ko tere julli ñaata fan ah ñaata fan ñaata soixante jours léegi nag imaginer la ñu ne kii yaay ji dafa kàbbar julli fajar xam ngeen fajar asalaatu xayru minan nawm mu dóor ñaar ràkk fajar am doom ñëwaat julli farata bi wala léere moo tax Yunus mu ne météo middo koye danga wonno o yuppi walla koye piɓol wuɗere o wonno o saami mu ne xanaa doom bi ci poos la nekkoon rek mu sottee ko ci poos wala dañ koo lafoon fii ci lafu sër rek mu daal di wat judd nit ñi juddoo lu ci nekk waaye yonent aasa kama aasal basar ni nit ñi dunde la dunde fekkewul sax papaam ci métit mu judd yaayam nàmpaliwu ko ci àll ba lañ ko nàmpalee ci giiru saadiya xalima moo ko nàmpal ñaari at delloo ko ci yaayam delloo si waat ko mu am ñeenti at yaayam dee faatu xoolal muy souffrir di dund ay mettit avant muy judd papaam décédé ñeenti at yaayam décédé yóbbu ko ci Abu Talib Abdul Muttalib mu faatu juróom benni at ñu ni ko ci Abu Talib mu faatu mu am soxna mu faatu mu am ay doom ñuy faatu ñu koy xeex di ko dóor ba damm bëñam bii xuri óomam yi rey ay saxaabaam ay doomam di faatu maa ni nit ñi dunde ay souffrir xiif mu daan toog weer cindu tàkk biir këram comme ñun ñii ni ñuy fandee di am ay problème nga nekk borom kër làmb sa poos tabaski jot doo am dara doo am loo tabaskee doo am loo koritee nga bëgg koor jot nga bëgg xëdd sax doo am loo lekk noonu nit ñi di souffrir noonu la yonent yàlla Muhammad souffrir aasha kama aasha al bashar waaye wa maata kama maata al bashar ñu nit ñi faatoo noonu la faatoo wala bi muy faatu dañoo yónnee ay cortège malaaka ñu ñëw indi ay ay ay kii ay mbalaan yégal ko ci yóbbu ko abadan ni nit ñi dafa feebar sax balaa muy faatu feebar ba jëbi di ñaq tooy xepp Fatima toog ci wetam léeg-léeg mu ne ko waa karba ala abi eh waay papa sonn nga mu ne ko laa karba bi abik baadal yow ginnaaw tey dootoo sonnati ginnaaw tey dootuma sonn léeg-léeg sukuraat bi jàpp ko ba mu ne laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakaraat sell ni ñeel na yàlla dee moo métti léeg-léeg mu ne allahu wa hawwin alayya sakaratul mawt yàlla yàlla na nga oyofal sama mettitu dee bi kon yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nit ñi du juddoo la juddoo ni nit ñi dundee la dunde ni nit ñi faatoo noonu la faatoo bi mu faatoo dañ ko suul ci suuf si wala suuluñu ko ci suuf wala ñu ko suul kaw asmaan waaw te mu ngoog loolu mooy mbir mi nañu xam ne dëgg gi mooy dëggu yàlla tabaraka wa taala subhanahu wa taala wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma mu leen di jàngal téere bi muy alquran di leen jàngal sunna wa hiya kullu qawlin salihin mooy sunna mooy bépp wax bu baax laa yantahi salaahuhu wa naf'uhu bi mururi zaman loolu mooy sunna bépp wax ju baax bépp jëf ju baax boo xam ne mbaaxam njëriñam jamono mënu koo jeexal wax ju baax jëf ju baax joo xam ne dafa am njëriñ njëriñam du jeex mukk ba àddina bi jeex loolu mooy xikma loolu la yonent bi ñëw dañuy jàngal jàngal ñu alquran jàngal ñu lu baax loo xam ne njëriñam ba àddina bi di jeex njëriñam du fi jóge moo tax nit ñi bu ñu xamoon diine du ñu sonn tey li ñu sonal yépp mooy ñàkk xam diine rek ñàkk xam diine rek moo nu sonal waaye diine su leeroon suñu bopp rek du ñu am problème waaye suñu problème yépp mooy suñu diine moo leerul ci ñun te diine dafa ñëw pour doomu aadama baax pour doomu aadama jag li tax ma wax leen ne diine dafa ñëw pour doomu aadama baax mooy xool leen diine li muy wax def leen ak li muy wax bàyyi leen lépp lu diine ne bàyyi leen rek xool leen ko doo fekk moom njëriñ a ngi ci sàngara misaal ah am na njëriñ sàcc fen jëw rambaaj tëx carte njaaloo fen xool yi lan moo ci baax dara baaxu ci soo nee fen baax na dañ laa fenalul boo nee sàcc baax na léeg-léeg nga dégg na waaye ñu sàcc benn waaye mu ne ba ñu dóor ñu mu ne waaye bu leen ko dóor non non bu leen ko dóor léeg-léeg nga benn waaye rey leen ko ñu leen doon mu ne da yow dañ laa sàccul te gis nga nga baaxul koo gis ñu mos ko sàcc bu fekk buñ jàppee sàcc buy ñëw yat lay indaale gis nga parce que moom xam na mbir mi tax dara baax li yàlla ne bàyyi leen ko dara baaxu ci waaye diine lépp lu mu ne defal ndeysaan da ngay gis ne ay njëriñ rek ñoo ci nekk ay xéewal même bu doon du sax du affaire yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam moom dong moo ñëw rek wax ñi lii rek ñun war nañu topp yonent bi ndax lim ñu jàngal yëpp intérêt nekku ci li ma doon wax nii yëpp est-ce que intérêt yonent bi da cee nekk ah diine li mu lay wax dafa yëpp lan alal lu ci yonent bi am intérêt dara amu ko ci bul fen bul sàcc bul jëw bul njaaloo yonent bi ban intérêt la ci am waa ji bi mu ñëwee ne yonent bi saa salaam non man nag wax dëgg yàlla dama bëgg nga bàyyi ma ma may njaaloo saxaaba yi ne dañuy rey waa ji yonent bi na bàyyi leen ko bàyyi leen ko bu leen bu leen ko dóor ñu bàyyi waa ji waa ji yonent bi na ko lan la waaye dama bëgg nga bàyyi ma ma wut ay gel rek may njaaloo yonent bi na ko ndax bëgg nga ko def sa yaay mu subhanallah sama sama yaay nag ah ki nga ko bëgg a def yaay jàmbur la di bu nga ko def sa doom mu ne ki nga ko bëgg def doomu jàmbur la gis ngeen ah yow mi bëgg a dem ci doomu jàmbur def ko lu bon sa doom yow mi bëgg a dem ci jigéenu jàmbur def ko lu bon sa yaay sa sœur sa tante soo xalaatee loolu doo ko def yu jàmbur ndax bëgg nga ko def sa waa kër professeur bi muy jàngale di jàngal waa lycée di leen jàngal ne leen bon comme ay xale yu góor ngeen mun leen toog nii du ngeen sëy kon bu ngeen waree sëy ut leen capote bon ngeen bu leen am rapport nii quoi ngeen di def capote ngeen sëy ba mu defee débat ba pare benn xale bu góor ne ko monsieur mu ne ah mu ne ko da nga ma jox sa doom bu jigéen ma tàmbali ci moom rek classe bi jaxasoo ñu ne kii daa réew est-ce que daa réew dafa wax dëgg réewul dëgg la wax rek kii jàngale njaaloo ji leen wax ko jox ma sa waa kër kenn léegi mbir mi jeex jox ma sa waa kër ñu tàmbali ci du ko nangu ñi maye kapoor la wax usine bi koy defar directeur général bi ñu ko doon di sa yaay ak sa sa sa mbokk yi ñu rang leen ñu rangal leen ñu tàmbali ci ñoom day tëj usine bi waaye gis nga dañuy denc seen njaboot indi indi ko ci dof yi waaw indi ko soirée ñi organise soirée di may ay kapoor seen jabar du ñëw seen doom du ñëw ah mooy làmb bi ma leen di wax rek làmb ji ñi koy organiser seen doom yi duñ bëre wax leen ma ci kenn ku doomam di bëre lépp lu bon ku koy def sa doom du ci bokk ak say sa njaboot du ci bokk pourquoi xam nga ne baaxul lépp lu bon laa wax ñi koy organiser seen doom yi duñ ci bokk dox yi rek la ñuy ñëw dugal leen ci ixwaan yi yaqulu llahu jalla wa ala borom bi nee na wa yuallimukum mu leen di jàngal ma lam takunu taalamuun yàlla subhanahu wa taala moo yónni yonent mu ñëw di leen jàngal lu ngeen xamuloon mu leen di jàngal alquran li ci nekk ci ay at mu leen di jàngal sunna sunna ñëw di leeral di traduire moom yonent bi saa sallam dundaam siiram di leeral dund saaba yi di leeral loo xam ne xamu leen ko woon ma lam takunu taalamuun fadkuruni adkurukum washkuru li wala takfurun borom bi subhanahu wa taala ñu sant ñuy tudd yàlla lu bare bare bare bare bare tudd yàlla waa ji ba mu ñëwee ci yonent bi ne ko sharaa'il islam dafa bëri ci sama kaw mun ma ko def mu ne ko jox ma lenn rek jox ma lenn loo xam ne atasabatu bihi dama ciy dëgër mu ne ko laa yazaalu lisaanaka ratban li zikrillah del tudd yàlla foo toll del tudd yàlla del tudd yàlla subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah yenn saa yi nit romb nga rek ñu ne kii dafa dof dafa am lu mu wirdu dof est-ce que subhanallah day dof loo nit nit mës na leen romb ñu ne kii dafa wax subhanallah rek téeméer dof dafa wax la ilaha illallah téeméer dof allahu akbar dof astaghfirullah dof yii ku ci yem doo dof waaye ku jël benn tur boo xam ne mun naa fees jàkka ji nga toog guddi ñëpp dina law nga naan dang di ko wirt di ko wax jinne mooy wàcc pes la foog nga dof boo yeewoo fajar mosu leen dégg yonent bi saa salaam amoon na cent vingt quatre mille sahaaba mosoon ngeen ci dégg sahaaba bu dof dafa dafa julli ba dof dafa wirt ba dof lu tax léegi fii ay nit di dof parce que yemuñ ci mbir mi dafa am luñ ci yokk li yàlla ak yonent bi indi amul luy dof loo nit alquran baa ngi ni ñaata saar la 114 ñaata hizib la ñaata nit ñoo ko mokkal ci alxuraan ci àddina bi kan moo ci dof du dof loo nit da ngay gis ku mokkal alquran mokkal sahih buxaari sahih muslim abu daawud ibnu maaja ay xale yu ndaw nga dégg ñu ne kii mokkal na alquran mokkal buxaari ak muslim ñetti téere buxaari ak muslim ñaata hadis ñoo ci nekk te du dof këj toog yenn saa yi ku ci teg mu watta maali cocc toog buy jàngale du xool ci téere nit ñi wër ko muy tont ay xale yu ndaw te duñ dof ah fii nga wirdu benn moo rek dof nga wirdoo liñ la wax yemoo ci liñ la yemloo jeex na kon tudd yàlla subhanahu wa taala yàlla daf ko sant ñun wax naa leen sànq ne bu ngeen jàngee dund yoon da ngeen fekk azkaaru saba wal masa muy tudd yàlla suba di tudd yàlla ngoon bukra wa asil suba ak ngoon di tudd yàlla dafa ci bokk léeg-léeg ñuy critiquer ay nit yu nekk ci tarixa parce que dañuy naf nangam dañuy nangam dañuy lii dañuy laa te ñun ñu koy critiquer duñ ko def est ce que ñun ñu ngi def suñuy azkar sabaax wa masa suba ak ngoon zikr yi ñeent bi jox ngay critiquer ñoo xam ne ñu ngi koy def te yow defoo est ce que yaa ngi def sa bos est ce que boo la rëccee boo ko deful suba est ce que di nga ko dabaatal est-ce que bu la rawee ngoon di nga ko dabaatal guddi gi balaa ngay tëdd est-ce que est-ce que sax na ci yow comme ni ko waa ji gëmee ba bu yoree kurus bi di tudd yàlla boo ko ne asalaamaaleykum ne la bañ a wax ak yow est-ce que yow gëmee nga ko noonu ah kon nañu xam ne tudd yàlla subhanahu wa taala ci li gën a jëriñ jullit ci kaw suuf tudd yàlla ci la bokk dégg ngeen ci siira ñu ne saxaaba yi dañ doon tudd yàlla ba buñ duggee ci duus dañuy sex ay xoxi tàndarma ndax bañ a tudd yàlla ci biir duus bi matt xoox bi ngir bañ a tudd yàlla ci biir duus bi toilette fu ñuy fu ñuy demee fu ñuy fu ñuy demee àll bu ñu doon dem toilette dañuy sex xooxu tàndarma matt ko ngir bañ a tudd yàlla place bi ñu koy defee ndax tàmm guñ tàmmoon tudd yàlla tabaraka wa taala jàngeen ñu ne man kaana axiru kalaamihi maza laa ilaha illa allah daxalal janna kon julli dafa tàmm di wax laa ilaha illa allah tàmm subhanallah tàmm alhamdulillah tàmm allahu akbar tàmm la hawla wala quwata illa jéem ko tàmmal salaam bi jàngeen yaay aysa mu ne yonent bi saa sallam kaana yazkuru llaha fi kulli ahyaanihi ci léppam day tudd yàlla tabaraka wa taala moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kon fazkuruni azkurukum borom bi nee na fàttaliku leen ma tudd leen ma ma tudd leen waskuru lii na ngeen ma sant wala takfuruun bu leen ma wetti waskuru lii na ngeen ma sant i'malu ala daawud maza shukran wa qalilum min ibadiya shakur sant yàlla as sukru tarkul maasi sant yàlla mooy bàyyi mooy yàlla subhanahu wa taala loolu mooy sukru as sukru tarkul maasi sant yàlla mooy bàyyi mooy yàlla subhanahu wa taala benn sëriñ dafa romb ay taalibe taalibe yi toog mu ne am naa laaj ma leen di laaj ñu ne ko lan la mu ne mbaa ku yàq dugub nekku fi ku yàq dugub gaay ne ko ah sëriñ dugub moos ni ko nit ñi amee ni mu méttee kan moo koy am ba pare di ko yàq mu ne waxuma loolu de ñu ne ko loo bëgg a wax mu ne ku reer ba sa biir fees nga dem jé reesale ko ci mooy yàlla kooku yàq nga dugub faami on faami on faami ah a faami yàq dugub xam ngeen yàq ceeb ceeb yàq mburu yàq yàpp lekk ba sa biir fees au lieu nga taxaw pour naafi la guddi pour sant yàlla nga dem baali wala nga dem soirée wala nga dem jaaloo ji yàq nga lekk bi parce que yaa ngi ko reesale ji ci mooy yàlla subhanahu wa taala loolu mooy yàq lekk mooy yàq dugub dugub mooy lekk loolu la leen bëggoon wax ixwaan yi fii la ñuy yem incha allah ba samedi bii di ñëw ñu ngi jéggulu yàlla njumte yi ci nekk di ñaan yàlla ñu yàlla wane la waat ba samedi asalaamaaleykum wa rahmatullah